jërëjëf jërëjëf ndaanaa na ngi nii toog xale bi way na ko léegi léegi jëmbat fa nga wóolu dénkaan na kala doy alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari wuy jur tey nag ñu am ndaje woo xamante ni nii am ak sunu pap bii nga xamante ni nii wax dëgg yàlla tey doon bëgg waxtaan ci Sénégal fan yee passé ñu invité woon fi seen baay wax dëgg yàlla mu am fi ay kàddu yu am solo yu mu waxoon wax dëgg yàlla noonu sama waxoon tey boo ñëwee loolu la gis papa maa ngi nuyu. maa ngi lay fay di la gërëm dila la sant ndax sa dëgg-dëgg ah, liñ fi sumboon yëpp yàlla def na ci jàmm fii lañ ko waxtaane woon ci penc bi fii nga ma dalalee ci penc bi fii nga ma laajee fii laa la tonte fii laa ñaane fii la yàlla nango li am nag barki démb ma njaay bég rek na ak kontaan di xaar na nga laaj ma tontu ci ay jàppale Sénégal yëpp la bëgg nañu wax dëgg yàlla sa dëgg dëgg dëgg ñëpp bëgg nañu am contentement bu rëy Sénégal gépp am nañu mbégte am nañu contentement waaye papa dañu am benn taxaw seetlu wax dëgg yàlla ba nu koy wax yaakaar nañu lii dina deme nii ba ba ki nga xamante ni mooy président Macky Sall ñëw toog président lay Wade ñëw toog Serigne Mountakha ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla yàggal taxawaayam am ci taxawaay bu am solo bu ci taxawaayee papa lii dafa mel ni da nga koo xamoon wala da nga koo da nga ko xooloon taataf réew mi xanaa am rafet njort xanaa rek yaakaar ne kilifa gu mel ne sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général bu murit <laughs> bu ñaanee <laughs> bu ñaanee wax dëgg yàlla ñaanam du ñaanam ñaanam suuy ndax Ablaye Wade taalibe la Macky Sall taalibe la Ablaye Wade taalibe la ci ëtt bi Macky Sall doom la ci sëñ Muntaxa bu yëkkatee kàddu ñaan Ablaye Wade nangu Macky Sall nangu alhamdulilahi rabbil alamin nañu wax ndax la ca jóge yëpp gis nañ ko Ablaye Wade ak OFM Macky Sall ak OFM ñu joxante loxo génne joxe loxo bi askan bi yëpp teg seen bët ñu ne déedéet waay li ci gën yaram nag mooy le président Macky Sall ba mu déggee Ablaye Wade di wax mu daal di jël nopp bi wàcc ko ba ci baat <laughs> naan maa ngi lay déglu nam naa dégg wax ja <laughs> ah jegewu ma leen ay waay bu mu doon ngelaw ay waay bu mu doon weñ dinaa nettali sénégalais li nga xam ne moom le président Macky Sall wax ak Ablaye Wade te Ablaye Wade nag wax ak moom boo xoolee nag ndeysaan ak ca taar ba ca xeesaay ba ba muy taxaw di wax ak moom Macky Sall ngay déglu mooy la war a ndeysaan jàmm rek te la lépp xaj ah te Sénégal kontaan nañu inauguration mosquée bi ni ma la ko waxee woon rek mm-hmm. ibbi nañu moska bi waaye ibbi nañu xol yi Ablaye Wade ak Macky Sall joxante loxo àddina ñëpp teg seen bët lii nag moom mooy Sénégal mooy réconciliation boo xam ne mu dëgg ci jërëjëf dégg jën sama bàyyi kàddu yu mu yëkkati noonu waaye papa fu ñu tëjee rek mooy dañ cee teg ñetti fan wax dëgg yàlla ko kook nga xam ne mooy xalifa Ababacar Sall yàlla def mu génn ko loo jàngatee loolu li ma ci jàngatee mooy <laughs> ñaan ba ca boppam moo daa dee law mm-hmm. mel ne ñaan doo xam ne dafa dal ci Ablaye Wade dal ci Macky Sall waaye law ba laalaale Khalifa Sall ndax ñàkkul ne <laughs> ku ci wax juum de waaye nag dañuy rafet njort ne ne sëñ Mountakha ba muy wax sóoraale na doomam taalibam di Khalifa Sall mm. sóoraale nag keneen ak keneen koo xam ne caabi féete na leen ginnaaw. lépp ku mun a wax rek mooy ibbil réew mi nooyalal baalal ñëpp joxal ñëpp loxo ànd leen liggéey Sénégal ndax Sénégal santul Sall santul Wade santul Diouf santul Senghor Sénégal Sénégal la tudd Sénégal. jërëjëf kon nag ñun ñëpp ñu ngi am mbégte ak contentement bu rëy di ñaanal président Abdoulaye Wade nag bu mu déglu kenn. Mhm. di président Macky Sall tamit bu mu déglu ku naqari wala lii nii ku ci am xel ñaar ah wax dëgg yàlla <laughs> yaa ngi yàq yoon bi nga xam ne Serigne Touba moo ko tracé te maam borom Touba kilifa gu mag la ndax Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mooy Serigne Touba te Serigne Touba lépp lu mu xam ne mës koo ñaan ah bu ñu demee ba ca ba ga gis na la ñaan ba nangu na de mm-hmm. kon mbégte boobu nañ ko partagé ak ñëpp gëm ne lii la yàlla dogal yàlla moo waxoon ne <laughs> président Macky Sall ak Abdoulaye Wade bu ñu juboo tànk yi bu ñu jumaa ji ndaw yu rëy fan nañu juboo yooyu ca jumaa ja ci kiraawaay kan sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général kulu murid ak kan Pape Malick Sy mi représenté sëñ Mbaye Sy Mansour murid tijaan laayeen xaadara kër kilifa diine yëpp ñëpp daal di ànd bokk ndey bokk baay waaye keroog sama yaram sumeeku na hmm. bi cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye abbé yi nga xam ne ñooy dëkkandoo ñi nga xam ne mooy waska bi bi ñu ñëw ba ci xalifa général ni ko wax dëgg yàlla ñaanal ñu ñun ñi nga yi ngeen am tey ñun ñu am ko loolu mooy wane jalaw islamo chrétien ndaw lu rëy bés la boo xam ne kenn du ko fàtte waaw ah, sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa lii nga sumb di ko ñaan lii bëgg te di ko ñaan ci diggante Abdoulaye Wade ak le président mag Sall ba nga xam ne jàmm moo ju ba Khalifa Sall génn yàlla na law ci réew mi ba ñëpp daal di joxante loxo bokk ndey bokk bàyyi. jërëjëf wax dëgg yàlla papa dégg doon la ci kàddu yu rafet yooyu wax dëgg yàlla bu ñu xoolee l'histoire du Sénégal kenn du la ci génne ndax ci wax lu baax. ci def lu baax ci taxawaay ci réew mi wax dëgg yàlla asan ñu ngi lay sax di la gërëm di la ñaanal yàlla gërëm di la ñaanal non fi dina koo xamante ni am nga fa xaar yàlla déedéet euh, Pape Mal si nga woon toog représenté sëñ kenn du fàtte bés waaye nag doom di la ñaanal tamit fan bu gudd mhm. sa émission nekk na émission bu am solo di ñaanal xale bi nga xam ne mooy ñanga di ko wax nag euh, géwél yëpp nag ñu ngi lay ñaanal mhm. fan bu gudd ak wér gu ak Ami Fall di suñu soppe nee nañ nag ab géwél bu fekkee fu ñu séddalee ab teranga <laughs> lañ ko ci war rek coppal ko bés bi lu bés bu tuuti da ah teel a aja xudoy woote ban heure six heures fa la ñuy def dix a def dong